yokkute askan la lii day yokku économie Kaolack parce que ku mënuloon ñëw fii jóge fii dem population dinañ sécuriser parce que lampadaires yi dina leen accompagner donc c'est un assainissement complet de li ñu tefal yëpp am na assainissement te buñ ko xeeb yokk ci état defoon déjà douze milliards sept yoo xam ne ñu ngi koy exécuter ci assainissement aussi kon dañ ciy santaat yàlla bu baax a baax di wax ne commune Kaolack à travers euh, ki nga xam ne kër moo ko jiiteel di Mariama Sarr mu ngi taxaw di gërëm di sant état du Sénégal di sant aussi ñi nga xam ne bañ fi duggee ba léegi ñu ngi def loo xam ne ñu ngi ci teg seen bët muy Promoville di génne di sant di gërëm état du Sénégal ak banque africaine de développement bi nga xam ne moo ko accompagner ci projet bi ñu ngi gërëm di sant aussi ci parce que population boo ca nekkee am na taxawaay boo xam ne boo ko taxawul dañ naan yaa war a def mais boo seetee ku la dimbale ba mu defal la da nga naan parce que l'État est divisible. kon nañu jàngal suñ population di jàngal suñ bopp taxawaayu taxawaayu nit ku yar te buñ la yaree sa kër bo génnee lool ngay def parce que li ñuy visiter tay dem nañ loo xam ne jëlaguñ ko ñu fekk ñu ji tour ay ay ay ay fosse di ci tuur ay ay doxum saabu yaq lo xamné jot jotagoo ko. te mu ngi fii biir Kaolack loolu nañ ci téye waxtaan ak suñu population yi sensibiliser mënatoo yar nit mais mën nga ko wax li nga xam ne li bu ko defee nga def ko ku ci nekk jël sa wàll muy yar teggin ak sàmm alal alal ji du alalu état alalu ñëpp la ñëpp a koy jëfandikoo kon nañ ci def sago def ci loo xam ne li yàlla dina ko gërëm ñu yar jikko yi gërëmaat ñëpp santaat ñëpp.